Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, les gouverneurs, le corps diplomatique, chers invités et chers jeunes. tey dama bëgg ñu waxtaan dama bëgg ñu waxtaan ñu toj yax bi def pacte te ku nekk sàmm ko man nag euh, plusieurs casquettes laa am fii laa juddoo fii laa màggee mësuma fee jóge te fii la ma yàlla baaxale bi may am 14 ans fukki at ak ñeent laa commencé tàmbali liggéey ci ndimbal yàlla tey créé naa lu mat 1000 emplois te boo seetee fii ci Sénégal nga xool aussi ci Afrique ba des fois mën nga dem plus loin di nga gis ne que bu jeunes yu bare def nañ ma référence donc dama war dama am pour taxaw ci seen ëllëg kasketu état bi ma sol doon ministre conseil du président de la république man gis naa gis naa lu muy daj pour mun trouver des solutions parce que bon on parle d'emploi mais réew ñun ñëpp xam nañ ko yu bare la te yëpp urgence la gis naa lu muy dal daj avec no maigres moyens bon pour l'instant parce que tout à l'heure <laughs> président bay di mi ngi wax pétrole beeg euh, euh, gaz bi mi ngi koy wax euh, pour l'instant maigre moyen yooyu nga xamee ni que maa ngi koy gis et kon dafa am solo pour que ñu gis effort yi état bi def depuis les indépendances la mais moom bu mu ñëwee bon 2012 ak léegi euh, tout à l'heure ci présentation bi wax nañu yi nga xamee ni que moom mooy réalisation yi dafa bare mais am na yu des yoo xam ne dama ci bëggoon wane effortu état bi éducation wax nañ ko c'est très important moom mooy base e on peut parler des universités éducation de base ba ci kaw mun nañu wax yépp énergie énergie on parle d'emploi énergie bu amul yu bare du mu nekk lii sax du mu nekk et on parle même que ne deux mille vingt cinq Sénégal partout mën na am électricité ak ah, am solo ak ah, am solo soo ko amul doo dem mooy dëgëral mooy joxe sécurité mooy indi transformation énergie yooyu ay jéego yu mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag bërki démb on parle beaucoup de terre de de de de suuf si xale yi mais bërki démb voilà euh, dafa laaj lu mat vingt notaires yu bees yu ñëw notaires yi ñooy enregistré nekk fépp ci Sénégal di gaawal mbir yi pour que ku am euh, terrain walla nga am la transaction booy def mu gën a gaaw c'est très important fibre optique 5000 kilomètres. Sénégal c'est un pays start-up la start-up la ci wàllu digitalisation ci wàllu connexion fibre optique c'est c'est important am nañu pays pays yu mag yoo xam ne am nañu mën nañu mais Sénégal attention fii on a une bonne connexion c'est une opportunité c'est une opportunité extraordinaire, etc., etc. waaye yokkal yokkal ndax jamono dafa soppeeku yokkal réew mu nga jiite wax nañ ko plus de 60 pour cent ay ndaw lañu xale yi jàng nañu école ñii dem nañu daara ñii jàng nañu métier yokkal ndax ñu wutal leen encore ay opportunité génération bi génération bi génération wifi la la lañuy dund waaw wifi la lañuy dund temps amatul nit a toog fii ci Dakar di jàngale Amérique génération baa ngi fii di liggéey di jaay musique am Japon frontière amatul si liggéey amatul il faut que man j'aime bien j'aime bien bu ñuy wax ñu proposer joxe ay opportunité mais ñu dégg leen aussi ñu dégg ndaw yi par rapport ak la ñu bëgg ak la ñu bëgg a def ñu dimbale leen ci encore léegi nag ma ñëw ci ndaw yi gars yi le chômage est partout le chômage est partout même gis ngeen entreprise yi faw ñu ciy jàpp ndax di nga créer mille emplois sax xëy na yaa ngi soxla woon 800 mais da ngay téye 200 yi ndax danga ci war a jàpp solidarité c'est important c'est très très très important chômage est partout lenn yenn yombul fenn je vous le rappelle action plus vision plus passion égale yoonu émergence action vision ak passion moo lay indil yoon boo xamee ni que mën nga ci yokk mën nga ci dem émergence bu leen bañ stage bu ñu leen fayul non non bu leen ko bañ bu leen xeeb salaire bu leen xeeb salaire lu ma leen waxoon tepp tepp gën yuret tepp tepp gën yuret bu leen ko xeeb maa ngi jëlaat kàddu di engagé wu fii ci côté état bi pour jouer ma partition fësal booster wane créer je faisais plus je ferai davantage en incitant encore le secteur privé il faut ñu jàpp ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk il faut que secteur privé bi jàpp si chacun doit jouer sa son rôle dans le numérique, l'artisanat, d'art et dans tout. maa ngi renouveler fii sama confiance au président Macky ah président sénégalais yëpp dinañu jouer seen rôle seen partition s'il bu neexee yàlla déwén ñu daje fi ndax nag léeg-léeg def le point dafa baax déwén nañ fi daje ñu xool li ñu def fan lañu yegg pour mën a dem ci kanam wasalaam jërë ngeen jëf Merci beaucoup Monsieur le ministre conseiller, Monsieur Youssou qui a apporté un témoignage sur euh, cette problématique de l'emploi et de l'insertion Ibrahima kii nga xam ne moom mooy ministre Youssou